ñi ngi lor askan wi nga ne homme d'état du wax kooku mooy lépp sauf homme d'état noppi gu bëri gu bëri bii ngay gis yëpp c'est que gars yi dañuy jàppante yenn saa bu ko defee dañ naan soo ma ma waxal la wala ba ma waxalee ma tëj la ndax maa yor nguur gi man mun nga ma waxal mais doo ma tëj dama ne ku gis lu dul lu dul yoon luy yàq ci réew mi da ngay taxaw ne lii mi ngi yàq su dee lu moo nar a tee nit nekk homme d'état yàlla bu ma ko mës a yàlla mës a def parce que complicité la nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi nit ñaa ngi accouché di dee jeunes yi amuñu liggéey réew mi foo laal dafa métti benn groupe rek toog di def lu leen neex milliards yi jaar fu ne ñu ne kenn du ci tudd